Euh, Mamadou kan laa tudd maa ngi nekk commerçant nekk fii ci marché central bu Thiès xam nga àddina bi li fi gën a métti mooy mag buy nax boppam te ñun Sénégal fii dañu feebar te yëgaluñu suñ bopp ni dañu feebar parce que nit ki bu feebaree xam ni dafa feebar dina dem hôpital pour mu mën a faju ji mais bu nekkee ni da nga feebar te yëgoo ni da nga feebar problème la kenn mënu la ci dimbali autorités yi ñëw nañ fi préfet ñëw na fi sous préfet ñëw na fi mair ñëw na fi àndi nañoo ki nga xam ne moo nekk le directeur de l'ONAS bi ñu dikkee man keroog taxaw naa leen wax naa leen problème bi fi mu posé woo commerçant yi am nañ ci responsabilité parce que dafa am ñoo xam ne ndox bi buy génn dafay xeeñal seen place yi affaire bi génne leen ñu jël ciment ñu fatt ko dem naa ba ci directeur technique bi wax na ko nee naa ko fii marché bi kenn amul droit ñëw di fi am looy fat mais ñoom ñooy autorités yi man du ma fi nekk di xeexal kenn du fi nekk di dem ci place kenn naan que li nga war a def waru ko def li ñu mun mooy bu problème amee ñu wax leen problème bi situer leen responsabilité nee nañ leen mun nañ leen accompagner dañu leen a wax ni accompagner leen ñu ñun le problème ñu réglé mais nanguwuñu ñëw problème bi mooy tant que ñoom jëluñu décision wala ñu bàyyi ko ñun commerçant yi ñu lijjanti ko suñu bopp mun na nekk. parce que problème bi problème mu compétence la dangay am ñoo nga xam ne am nañu xam-xam suñu universitaire ñi ngi fi li ci des mooy problème mu xaalis xaalis bi génn ci marché bi nañ ko audité ñu xool xaalis bi fu muy génn ak fu muy dugg bu ñu demee ba nga xam ne xaalis bi fi nekk mënul régle problème mu marché fii Thiès ñu yalwaan yéen euh, euh, euh, journalistes yi ngeen def benn téléton ñu ni Thiès dañu am problème problème bi budget bii la ñu soxla mm-hmm. commerçant bu am un million nga génne commerçant bu am cent mille nga génne commerçant bu am dix euh, franc nga génne mais problème bi mooy nañ ko régler une bonne fois pour tout mu jeex bu ñu ko deful dañuy nax suñu bopp yan la leen ndox bi di indi leen période nawet fii guddi fii ndox bi déjà du jàll guddi boo fi nekkul ndox bi yëpp day dugg ci sa place man maa ngi nii suba ba léegi maa ngi nii di nettoyer sama yére yëpp dafa tooy maa ngi nii suba ba léegi mënu ma liggéey te man suma ma dépense ma dem wuti ju fenn man ci marché bi laa koy wute yaakaaruma fenn fu dul fii ci marché bi. li ngeen yëkkati nii cantine yu ndox bi bu ñëwee day dugg. dugg ci biir ndox bi ci suuf lay jaar xoolal li taaf yi bu oto yi dikkee bu ñu jaalee ndox bi ci suuf lay jaar di dugg si biir. te li ma la wax rek ñun du ñu xëy di ñaani dépense kenn te fii. clients yi am na ñoo xam ne bu melee nii du ñu dugg si te man bu ma fi toogee fi toute la journée jaayu ma damay dem ñibbi loolu mooy suñu problème autorité yi xam nañ ko nañu jël seeni responsabilité bu ñu demee ba xam ni mënuñu régler le problème bi ñu ñoo approché commerçant yi ni leen jéem nañu jéem nañu fii la problème bi nekk ak ñoom ñu jéem a trouver solution boobu xalaat lañ ci am mën ngeen baal ñu nag